ama neex kaay ama neex. man de sama xoolal lii xoolal werante bi. da ngaa nooy nepp yow. yow da nga nooy nepp. non déglu ma ma dem ma dem déggoo ma de non dama ne. yow bu dee yow bu dee yow rek yaa xëy. may moom ma wax. wala soog yaa ngi koy ruube. dama la da nga nooy nepp ngay tegle. waaw waxal yow li maax yow lii du maax yow du koom. waaw ok waa jërëjëf. mais yow bu yow ma bàyyi bëre dem Modou Modou ji. dama la soo doo boo bëree man ren dama dégg boo bëree man mu tëllal. bëreel yow yow maa ngi dañ ko yow mbëru 2 millions nga. ama neex yow. ay yow fii xat na tey de Lamine tas roqo la de tàncante. kon doo bëgg a bë mbëru 500000 ak mbëru 2 millions bu doon mbëru 500000 la kon doo bëgg a man. nooy tax ma bëgg a bëre nooy. ma li ma la de kii naa benn ñaata sam ñaata bokk leen ama ne bokkuñu kutugu dama seeti sa morom ma duma sa morom garga mi ngay tëkkul sa yaay tapet bi garga tapet yow mi de ab Roqa ngi nii nag de ci luttetv.com naa leen waa taay singa ngongu mais yow lan tax nga ama neex yow góor a ba tànc ci Roq Grand Théâtre yi di ama neex tapet la moom dafa yab garga naan moom mooy tapet bi mais man damaa gis Demba Diop Iba Mar Diop Léopold Senghor foo ko fekk rek ba tey ci ruq ko fekk tànc ko fi. su bëggee ñu bëre ci canal si tëngeej bi canal bi mën naa moom te dama moom wax noonu la ndegam damaa raw may tam dama ko raw bëree maa moom loolu rek man duma ko tëkku. góor mu mel ni def ci parcelle ñu ne xale yi xale parcelle dañu wane seen bopp bu baax ci làmb ji. ñun dañuy liggéey ànd suñuy grand frère Modou Lo Papa Sow Garga ñun parcelle mbëri dañoo bëri mais ñun dañuy liggéey liggéey moo nekk si fu ñu nekk nii waaw.